هو الأبي زمان والسلام هد لدى والأسماء والإزام يا حي يا خيوم يا الزمي يا أقيا سيل أقيا سري هجل أراك من أراد نفسي هم قبل الليل بطن الأمسي جني كما سنت نبي زرع الفلق زلاء الليل وما لأ الفلق جني كما سنت نبي زرع الفلق زرع الليل وما لأ الفلق lil muntaqa xuduta amdaan awad sadadaya jalaaley li si'ate bi madadaya allaw fadalaw xalxan wa sama'oya xulxan bi li siwaana kafama nasadaya xayraat rabbi naani lil jinaani bi bu ngeen wuy woote boo xamante ni sëriñ Basiir bu Bousso moo ko woote ci kaay leen jàng alquran kaay leen jàng xasida kaay leen def ay bernde kaay ñaan kaay leen ñu waxtaane jaar jaari nit ñu baax yooyu boo ci topp rek am na cëslaay lu wér ci diine ndax sëriñ Fadilu Mbakke rahimahullahu wa radiyanhu ci xutba bu mu defoon ci 1962 ci màggal ak Touba dafa waxoon nu ñuy màggale loola nag lu mat di waxtaane la waxtu nekk ndaxte moom mi woote woon màggal gi fii ci Touba moo waxoon nu ñuy war a màggale ndax màggal si ak màggal bokkut màggal si ak màggal bokkut màggal nag moo am solo mooy da ngay teew ba noppi itam lañ la waxoon na nga màggale ko nga defe ko noona nee na woon azimuhu bi tilaawatil quraan nee na kuy màggal na ko màggale ci jàng alquranul karim wa bi qiraatil qasaid ak jàng xasida wa bi itaami taami ak ci joxe aw ñam wa bi ziyaarati saalihiin ak ci ziyaare nit ñu baax ñi wa bi silati rahim kon bis bii mu def ci ay berle waaye itam nag mu def ci jokk ak bokk ku nekk xam ne ni ñu fi daje am na ci ñoo xam ne gëj na ñoo gisee dinañ def itam ñaan ñaan gi nga xamante nag moo tax lii tax a jóg te muy loo xam ne itam lu mat a bàyyi xel la ndax sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu wax na ne ñaan jërta xeeb yan du'a yanfa'u maytan fil qubur wa yanfa'ul hayya wa yujibul ujur nee na ñaan dana jariñ nit ku faatu bañ tàbbal ko ci biir bàmmeel dana jëriñ kuy dund te dana waral sunu borom di bindal tuyaaba nit kay ñaan kon loolu lu mat a bàyyi xel la mu ne kan lay ñaanal ak kum leen woo ci jataay bii ak kenndal gi ngir ngeen ñaanal ko mooy woy jur yu dawlu ya woy dawlu ya te nit ñu bari nag dinañ fàtte nit ñu bari di dinañ fàtte foofu mbokk yi mën naa taxaw le ndax nit ñi da bari na loo xam ne dañ koy def ngir bëti nit ki bëti nit ki bala nga koon a xam nga nga nekk ci ab koñ di yor say ay say bët di toog ci sa buntu kër dëkkandoo yi ku la romb dana la nuyu ndax yaa ngi koy gis waaye bu la yàlla nattoo say bët muuru rek nii la lañ rombe kon lu taxoon ñuur yo mooy bët ya kon na nga yor sa way jur bët bu set nga dem xam ne mi ngi ci kër gi mënoo koo teggi ndax soo ko nuyuwut mu ne ana diw sàngam waxtu saa soo xëyee dem nuyu ko sa maam noonu sa yaay noonu waa da defe ne yëg googu mu la doon yëg ci bi muy dund bu fi jógee du ko aajowoo waaye bu fi jógee aajowul nga koy nuyu dafa bëgg nga koy ñaanal dafa bëgg nga koy ñaanal di ko fàttaliku ci lu baax di def lu baax di ko yéene tuyaaba ja mooy lii nga xamante ni sëriñ Basiiru moom la woote ngir ñu ñaanal ci maamam muy maam Asta Waalo Ñaŋ di ku ko yayoo nag di ku ko yayoo ndax doo bokk fa nga bokk bokk fi bokk fa mu war a bokk te askan wu rëy nag ba noppi itam mu futteeku liggéeyal xaadimu rasul fi nit ñu baax ñëpp jaar fa mu ànd koo borom këram ba di sëriñ bu Bousso daa fekk sëriñ tubaab fu ne kooku liggéey na kon nag yayoo na itam ñu taxawalal ko ab bis waaye lu nekk itam dafay am fu muy tàmbalee xëy na bis bii lañ doon nekk ci sëtam bii di sëriñ Basiiru ak ñi ñu ñu ànd ak moom ñëpp nag ñun ñu ànd ak ñoom ak ñi ci jàpp ñëpp kon loolu mu def lu mat a bàyyi xel la ndax maam fii ne nii ba tey damay dellusiwaat bari waa na nit ñoo xamante ni boo nee la no noo noo tudd ñu ne diw sàngam nu sa baay tudd nga ne diw sàngam nu sa bàyyi bàyyi tudd muy sa maam nga ne diw sàngam nu sa bàyyi maam tudd nga ne diw sàngam waaye soo tegee quatrième cinquième mu dak moo tak lu ci ba tax na nit danga naan ko noo tudd mu ne diw sàngam nu sa bàyyi tudd mu ne diw sàngam nu sa bàyyi bàyyi tudd muy sa maam ju njëkk première maam mu ne diw sàngam am na ñoo xamante ni foofu la ñuy tagee troisième maam quatrième maam cinquième maam moom boolewuñ ko ci te xanaa xamuñ ne maanaam wenn cinquième maam bu amutoon première maam du am lu ma ta bàyyi xel la ñaar fukkeelu juróom ak juróom ci maam bu amutoon sa première maam bii nga bëgg a fonk rek du ndax ci yàlla ci ñoom la ko jaarale ba mu yegsi kon na fonke fonkee première maam ak sa baay noonu nga war a fonkee cinquantième maam cig yëg ci ñaan moo tax alxuraan toujours mu naan rabbana xfir lana wa li ixwanina allasina sabaquuna bil iman wala tajal fi qulubina xillan lilladina na rabbana innaka raufu rahim ñaan gu réy la yow yàlla yàlla na nga ñu jéggal jéggal sunu mbokk yi ñu fi jiitu woon te gëmoon yàlla ñaan gu rëy la gu mat di wax la ndax daanaka ku la jiitu woon tey ku baax ñaanal na ko te nag maam maam li tax ñu war koo fonk dafa yore wàccuwaayu baay ndax alxuraan dafa tudde maam baay yonente yàlla yuusuf dane wattabaatu millata abaa'i topp naa diine ja sama baay toppoon ñu ne ko ñan la mu ne Ibrahim moom la ci jiital de te sama sama diiney baay ya la wax kam ca jiital la ne Ibrahim te maamam la wa Ishaq wa Yaqub Yaqub mi mujj tudd mooy baayam dëgg-dëgg waaye ñaar ñële ay maamam la te wàcc waayu baay la leen jox te looluy dëgg nag kon nag man waxtaan wi sëñ Abdoulaye mii moo koy def dama doon ubbi dong ak euh, xam naa ne wax ji itam amewut noonu njariñ waaye damaa am yéene ci lii sëñ bii def di ko ñaanal yàlla sunu borom tabaaraka wa mu may ko fan wu gudd ak wér may ko itam ay mbokkam yëpp ak ñi ko ànd ak moom ci bis bii di ñaan yàlla itam lu baax lii mu continuer ilaa yow mi diin sëñ bu so nag waxtaan wi mu tënk doy na sëkk ci li sabab jataay bi ndax lenn li ci nekk dafay dellu ci loo xam ne ak jaamu yàlla lay doon kon kiñ koy wooteel ci loolu rek la nekkoon ni mu ko waxee léegi ci di soxna astawaalo ñang euh, daan daana daal soo ko dee tënk danga nga naan doom doom la ci sëriñ bi doom doomi sëriñ bi la sëriñ bu mag bi ndax Sëriñ Cerno moo nettali ne bi ma astawaalo jógee Sëriñ Abdu Lahad dafa sonn ci ci ci ci ci bis bi lool def lépp bi mu demee di ko sant mu ne ko déet bu ma sant ndax maam asawal dañoo bokk baay dañoo bokk baay mas na tamit sëriñ suñ cerno sama baay ne ko askanu ñangeen wi nu ngeen ci demee mu ne ma ñangeen yi moom ñett ñett lañ ñoo xam ne ñoo ñëw ci aafe daanaka koo gis ci la ci la soqi ko muy ku ñuy wax ma Masamba ma ak Abdou ak Demba daan ne ma nag ñun ñi ngi bàyyikoo ci ma Demba Maram Ñang boo dee xool ñaari wàll ñaari wàll yépp daal di may jox aw këyit woo xam ne euh, mi ngi ci bind ma Demba Maram Ñang moo jur Abdou Aram Ñang daal di ñu jël benn wàll bi daal ne Abdou Aram Ñang jur Cerno Korko mu jur Mati ñaŋ mu jur Sëriñ Xaafiye bu so mu jur ma man Sëriñ Cerno waaw Cerno Korko nag ak Amadou Korko ñoo bokk lépp mu jur ab Abdou Seck mu jur xari saajo mu jur soxna Astawaalo ndax Astawaalo Mbàkke xari am na sunu maam ju nekkoon fii ju ko daa wax euh, mu jur xari Sadio mu jur soxna Astawaalo mu jur Sëriñ Cerno nga dem ci ma Masamba ma gis ne moom moo jur ab du Samba mu jur Lamine Xayta Gàdd Lamine Baara Xujja mu jur Malamine ak Sëriñ Joogu sëñ Malamine jur euh, Euh, soxna Asta Waalo muy waajuru sëñ Cerno bi sëñ Njoogu Mati jur sëriñ Baara Ñang muy waajuru sëñ sëñ euh, Abdourahman sëñ Baara Xuja tamit di waajuru sëñ Moodu Faajama Ñang muy waajuru sëriñ Moodu Xëri Ñang muy waajuru sëñ Abdul Aziz mii kon soo ko dee xool digganteem ak sëriñ Afia dafay jaxasoo ci côté bépp ci côté bépp kon noonu la deme soxna Sawal tamit nag doon koo xam ne ci mag ñi la bokk jamonoonteeg sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi mooy sëriñ bi ci boppam moo joxe ndigal bi mu bi mu ne nañ ko yóbbu kër sëriñ Afia sëriñ mag bi laa wax moo moo ci joxe ndigal li liy firndeel ne tamit mën nañ koo booleeg doomi sëriñ bi ndax soxna Mati Bousso moo jur sëñ Malamine mu jur mu jur ko moom soxna Astawalo soxna Mati Bousso di taaw maam Astawalo bokk ak maam jaara Bousso lépp ak sëriñ Bousso bi kon lu muy bokk ak sëriñ bi foofu ci boobu côté ay bokk yu jege lañu doon kon loolu rek doy na sëkk soo ko doon misaal ndax boo demee ñangeen dama ne la ña ña ña gën a tedd ca ñooña ñoo ko seq ci wet yëpp soo demee ci Bousso bi it sëriñ Bousso bi ak soxna Mati ak soxna jaara ñoo bokk lépp soxna Asawalo doy na référence ci lépp soxna Asawalo te sëñ man soxna Mati buso mooy taw maam maam maam maam Astawaalo wax nañ ne sax moo jàngal maam jaara moo ko jàngal maam mi nga xam ne moo ñu indi lii nga xam ne moo ñu jariñ euh, moo ko jàngal mu doonoon koo xam ne it nag lii sëñ Fallu doon wax ñun li ñu li ñuy nettali yi ñu jot am ci moom te jële ko ci sëñ Cerno mooy jikko yooyu la jikkoo woon muy nangoo nangoo toppe topp kilifaam ba noppi nangoo liggéey nee na dadaa bay di yar ak jur di rabbu ay sër tamit euh, bërki dem rek ma ci waxtaan ak sëñ Seex Jooreel nee na ma sëñ Saaliwu mas naa nettali ne soxna Astawaalo de yeewi na yeewal ñu te booba yeewal ñu jafe na waaw yeewi na jur yeewal ñu ba tey te booba yeew jafe na sëñ Saliou moo moo moo ko doon jaajafal ci loolu boobu kon loolu ay firnde la li taxit nag ñu mat koo fàttaliku rawatina xéewal gi nga xam ne defal na ko ñu askanoo ci moom euh, dafa am danaa def saa suriñaa daa dem di fekk sëriñ bi jolof lu ci ëpp daana ko defarloo cere wala mu defarloo ko ay ay ñam yoo xam ne moom lay àndal dem ceyeen am na ci aw yoon dafa am aw yoon woo xam ne nag dañoo jóge fii ci guddi àgg bi fajar di di jot fekk sëriñ bi julli ji ba jóge ci jàkka ji ñëw defale génn war a gise ak nit ñi nee na bim ñëwee romb leen daan ne ana ñooñu ñu ne ñu wuyu ne ñoom la astawaalo nee na biñ biñ biñ ñëwee toog ba mu yàgg fekk sëriñ bi takk na fuddën ci ay tànkam daldi koy wone ko asta ñëwal dindil ma fuddën ji ne ñëwal dindil ma fuddan ji ma takk nee na bi ma ñëwee di ko dindi mel ne luy xaw a moytu tuuti mu ne ko déedéet dindil bu baax yow xanaa xamu ne sama doom nga dindil fuddën ji bu baax xanaa xamoon ne yow sama doom nga nee na mu daal di dindi fuddan ji ba mu àgg mu ne ko man nga koo jël barkeeloo ko ne ko bi nee na bi ko Sëñ Afe séenee dafa fëx ñëw ngir fa yéenee nangu yëf yi ci moom xam nga Sëñ Afe ni meloon ci sëriñ bi ma nee na soxna Aswal ne ko ah, mën naa la cee jox de waaye danga ma ciy fàggul ba noppi ma doog la cee jox nee na Sëñ ne ko mën naa la cee fàggul njaboot goo am mu barkeel sëñ Afe moom dafa doonoon koo xam ne loolu jàpp naa ne feeñ na lool ci ak njabootam wax dëgg yàlla feeñ na it ci mbiram loolu rek jar na màggal soxna Awa Bousso tamit mi nga xam ne woon nañ xam ngeen ne dafa yoroon ab tóokër fii boo xam ne dadaa faj ñu koy indil ay malaat yoo xam ne fu ne la ñuy jóge bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko wuutu ñoo ko dond ci ci loolu si ceeru nee na fii daanañ fi indi jarak joo xam ne léeg-léeg jàngoro ju kenn xamut lay doon léeg nga gis koo xam ne dañ koy indi biir bi ne fëdd waaye nee na mooy nekk fii di baxalaka tàngal ba jox ko ba mu jóg dem yoonam def na ko fii ba tàyyi de nee na it daanañ ko indil koo xam ne ab góom lay yor boo xam ne mar day tali waaye ay ratak ay yëfam lay yor yoo xam ne day jël di ko faj ba mu jóg dem yoonam te kenn musta ñëw ci këram tamit te jëlul aw ñam jox la wala mu teral la maanaam suñu borom defaloon na ko barke defal ko teraanga jooju saxaloon na it si siñ jarroy nettali na ma ne man soxna si xam naa ne ku bari pëstef la ma ne ko ah mu ne ma dama gis ne booli ndab yi nga xam ne moom la daa togg di ko yóbbu ci jumaa ji wala ci barab yi buñ ko jëfandikoo ba noppi ak ci kilifa yi bu ñëwee laya ngiit yu njëkk ji moom lay jël di ko baxale yim daa faje jarag yi mu yor waaw loolu nag kon Pastef la bëri na ñoo xam ne xëy na boo leen bëggoon a kii yooyu sax mën nañu jàpp ne ah, waaye loolu loolu tamit Pastef la kon soo ko dee xool ci fànn yi nga xam ne jigéen dana ci dana ci wut ngërëmul yàlla yépp daje woon na ci moom muy nangoo toppe nangoo liggéey nangoo joxe ñam ak yaatu ba noppi topp kilifaam muy boroom këram ndax li tax mooy loolu mooy xam nga ne booba jóge fii dem ceeyeen jafe na jafe na lool li tax mu mën a am ngërëm loolu loolu tamit yombut sëriñ tamit bi nga xam ne yàlla dogal na mu nekk fii ci Daaru Marnaan te xam ngeen ne loolu xissa boo xam ne xaw naa ki xaw naa doy waar waaye booba am na tawat ju ko daloon joo xam ne tubaab yi aaye woon nañ ku jege foofu waaye moom daf ne woon mukk fu sëriñaa nekk fa lay nekk waaye dara jotu ko loolu tamit pësteef la loolu lépp rek soo ko dee xool damay jàpp ne li ëpp solo ci bis bi te sëriñ wax ko sëriñ Fallu wax ko léegi mooy ñu roy maanaam ñooñu ay kàggu lañ yoo xam ne war nañ leen a roy ci seeni melokaan ak ci seeni qualité yu am solo jàng xam lépp waaye nangoo liggéey nangoo toppe waaye nangoo joxe ñam yaatu ba noppi doon koo xam ne nitu social nga maanaam yow daal jàpp nga ne koo gis war nga koo dimbale seen mbay moomook seen jur yeeg seen yooyu yëpp defuñ ko woon lu dul trouver solution buñ gisee ne lu lu lu kët na jonn ñëw na loo xam ne war nañ koo régler dañ koy daal di régler ci saasu maanaam seen capital loolu nag la leen doon jariñ loolu tamit soxna su nekk war na war na ko roy loolu tamit ñi dañuy jàpp ne ñu ngi ko tibbe ci jikkoy maam jaara rek ndax soxna jaara tibbe ko ci jikkoy maam astawaalo ak maam ati buso mi nga xam ne ñoo ko meññ soo dee xool ñoom ñëpp noonu lañ noonu lañ mel alifan nusko wal xibaadatu wal xulwa tiflan wa hakadan nu jaba loolu mooy mooy li wér kon su ko defee bu sëriñ Bass indee bis bu mel nii tamit ñu fàttaliku ko lu jaadu la ndax dafa lëmu te nit ku am ay qualité la koo xam ne wax dëgg yàlla soo xoolee njabootam gi ko yàlla dimbalee xam nga ne liggéey moo koy mën a maye. àdduna nag moom de su fi am lu ñaqut maanaa ku jëfut doo jël loolu mooy li wér waaye fal nañ nag lu bari léegi ci sëy yi wala ñu waaye ko ci diggante góor ak jigéen bu ñuy ànd ba nii may wax ak yow nii képp koo xam ne jëf nga te fonk sa liggéey danga am barke. ñooñu nag mag ñi looloo leen ko mayoon wax dëgg yàlla dañ daa liggéey te di ko def ngir yàlla ba noppi it suñ amee ñu nangu ko delloo ci yoonu yàlla loolu moo leen may li ñu am lépp kon képp koo xam ne ndaw nga wala ngay soxna wala ngay góor war ngaa roy ci jikko yooyu kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawféex te taas ñu ci barkeem li ñu fi jàng lépp ci alxuraan ak xasida sunu borom dolli ko leer dolli yërmande it sunu waajur sëriñ Thierno dolli yërmande sunu bàjjan soxna soxna bu Buso ak sunu bàjjan maam Buso waaye ak suñu maam tamit yi nga xam ne moom la àndaloon di liggéey ci kër sëriñ Afia muy sunu maam soxna euh, Fati Kanni moom maam Mor Jaara kon xam nga ne li ma li ma doon li ma wax a ngi noonu ñoom ñaar gis nga soxna jaara sëñ moor jaara soxna jaara soxna astawalo sëñ malamin mati soxna mati busu ñoom ñaar ñoo nekkoon kër sëriñ Afiye di liggéey waaye gis nga sunu borom tabaraka wa taala ni mu barkeele seen njaboot soo ko dee xool moom da nga ciy teg sa bët foo dem rek ci fi ak njabootam nekk soo demee Gédé fa tabarakallahu soo demee jo jooreel wala nga dem Mbàkke Bari fa tabarakallahu soo ñëwee fii tamit sunu bàyyi sëriñ Thierno mu ngi nii nekkoon fii doon koo xam ne dundam gépp barkeel ñëpp warmal ko muy ku liggéeyal yàlla koo xam ne wax dëgg yàlla amul kenn nattablewut jëfam ci saayir ak ci baatin nag kon yàlla ñu ko yàlla fayal te teg ñu ci yoon woowa barakati xaadim rasul Soxna Su Waalo nag day koo xam ne euh, ni ñu ko waxee nii rek doomi Sëriñ Tuubaa la woon Sëriñ moo wax ne sama loolu muy lu wér ndax euh, soxna Mbati Buso ak soxna jaar bi suñu bokk ndey ak baay soxna mati bi soo jur baayam kon baayam bu wér doom moo tax mu ne sama doom waaye eh, léppi soxna asubaar itam eh, ci ndigalul sëriñ bi rek la daan doxe moo ko joxoon suñu afiya bu te ba ko ko joxee am na lu mu ko ci wax ne ko kii ma lay booleel kat sama doom loolu foofa la doom ja jëkk tàmbalee sax nag sama doom laa lay jox Euh, loolu lu yéeme la waaye soxna Asta Wally itam man amoon pëste boo xam ne mag ñëpp seere nañ ko sama bàyyi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Niang kenn la woon ci moom mu ko daan wàcceel ay soxnaam ci këram ba mu tuddee ko doom jox ko ko maam Asta Wally ku ne gis na ko mais koo xam ne kii itam pëste fam ci yoon wi rawatina Cheikh Mouhamadoul Fadal daanaka lem daan defloo la ko son la ko soxna Awa Bousso daan defloo tam wóotaloon ci soxna Aminata Bousso moo mo moom soxna Asta Walo la ci wóotaloon mooy bu amee lu muy saafaroo ci wàllu wéridi wala yu mel noonu lu mel ne ay laaxi koraay ak ay yooyu muy daan fajoo moom la ko daan la lu muy loo xam ne lu kéemaan la <laughs> moo tax nag moom te ko di ko wax ne ko lañ koy barkeelee ca kookee ca kookee waaw. <laughs> kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp. nee soxna si ngeen doon waxtaanee. sëñ Modou Khari daa amoon ci moom ab cër. cër ba këram tey moom la ko bàyyee ba mooy këram tey moom la ko bàyyee woon. képp koo xam ne wàcc nga kër ñang ci kër sëñ Modou Khari ñang ba ci doomi Serigne Touba. soxna sa waalo moo la wàcce. nee na kon loolu doy na sëkk ab sëriñ Serigne Thierno mi mu fi bàyyi woon it. te mujj fi tam xamoon na cër boobu bu baax. daana ko doxal ci biir bokk gi kon nag moom lépp sotti ci ak def ci la Pastef nag dafa am solo lool nee na lu waay ci sëñ Tuuba Pastef moo la ko may Pastef nag nee na am na lu mu ci mos a dégg sëñ Modou Xari Ñang wax ko ci diggante sëñ Mbay Jaxate ak Serigne Touba. sëñ Babacar Jaxate dafa yore benn loxo loxo bi metti lool mu xëy bàyyi ko xuru Mbàkke dikk fa sëñ Touba ci njaareem booba sëriñ baa ngi fi mu dem ci genn kees fekk fa ku tedd ki tàllal loxo bi sëriñ bi sëriñ bi ñaanal ko loxo ba wér bi sëñ Touba ñibbisee Touba nag loxo boobee delsi sëñ Mbay dellu di jëlaat pëstéefam jóge xuru Mbàkke dellu njaareem dem ba kees gam fekkoon borom Touba mu yegg suuf tàllal loxo ba jël pëstéefam def nam defoon ak sëriñ bi ba mu fa jógee loxo ba wiraat nee na loolu mooy pëstéef te kenn ku ne xamoon na pëstéefam sëriñ Touba ak bëggum ko bëggoon ak ni doon toppatoo ak njabootam soxna itam jox na leen ay jàng mën na mën nañu jàng ci moom ju rafet yu yëpp rek yoo xam ne soxna da koy aajowoo rek muy ñeme njaboot ak ñeme eh, di fàggu li ngay fàgg nga koy delluwaat ci njaboot gi loolu moom la fi soxna si nekke woon am na soxna su baax soxna Daba Ndiaye eh, doomi soxna xujjalay mii nga xam ne maama saako yar eh, doomam la nekk fee nekkoon fee soxna say ma ngi fa damay na si lu bari bari soxna si daana wax ne daana bari ñu jaaxle loolu ñoo xam ne nii Eh, ci soxna si lay ñëw te su ñëwee rek mu lijjanti leen seeni i jaaxle ay góor ak jigéen ne ñu gis na fi ñu bari ñu ba tàyyi ku ñëw di dis ko soxlaam mu lijjantil ko ko ci ra eh, mu dem faj soxlaam loolu nag njàmbaare moo koy may ndax fii ci këram gi nii mu dëkkoon wanagam bi dafa daan fàggu ay fàggutif yu bëree bëri xeeti mbay xeeti eh, ràbb ay sërëg mboolem xeeti fàggutif yi nga xam ne dëppoo ak jigéen da ci daan taxaw muy wane ne jigéen mën naa boole jàmm yàlla ak liggéey solo xam si loolu la boole woon ni sëriñ As sëriñ Fallou na waxoon léegi ci joxe aw ñam tam moom mosis fee ñëw mukk te néew la jàllal ci roq be seet seet su père be père be dama jàll seet ko muy mag muy gone saa yooyu ñëwee faw ak waxtu mën a doon faw rek mu jox la dara waxtu yu ñu toll nii di waxtaan ci la boole mi daan génn dem jumaa ja muy bisu alxamis bi sax sëriñ Bas dafa mel naa am na taw feex tànn gi ndax bis bi mu tànn mooy bisu alxamis ci la soxna si togg Eh, ndab yi mu daan yóbbu ci muy ndaw yu barkeel yoo xam ne nii ma ko doon woon ci maam aw wusu kon soxna si daal sëriñ Bass ñu ngi sant bu baax di sant mboolem eh, ñi ngi seqal sëriñ lii sëriñ Bassirou def xol yëpp ci sedd ndax dañ naan puso bu rot mag dana ko for gone dana ko for waaye tey gone for na ko kon nag noo ngi koy sant bu baax di sant njaboot gépp muy njabootuk sëriñ Thierno di tàmbalee ci soxna Faati Kine ba ci ki ci gën a doon gone ñëpp benn bopp lañ amuñu lenn lu ñu xajale ci seen diggante ñu jël suñu kilifteef yi ñun ñëpp jébbal ko alaaji Buso moom Baye Abdou Buso sunu lépp mu ngi ci loxoom lépp lu mu digal moom lañ fas yéene def te ñaan noon suñu borom it duñ dugg ci lu muy tere kon daal bis bii noo ngi ñaan ku fi ñëw sa tànki dikk ak sa tànki dem yëpp yàlla na ko suñu borom defu yiw ci barke Sëriñ Tuubaa wa salaam. turu Sëriñ Basiiru Buso mi nga xam ne ginnaaw yàlla sababu jotaay bi ci moom la jóge moo ñu jox ndigal ñu yëkkati kàddu ci turam xëy na danañ ci lott ci niñ ko waroon a waxe yëpp mu waxe ko waaye ginnaaw bi mu sante yàlla bu baax julli ci yonte bi sallallahu wa sallam sant seexul xadim mi ngi nuyu bu baax ak di siyaare bu baax a baax Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko ànd ko wér moom nag ku ne xam na ne cërub Cheikh Mahamadul Muntaxa la ginnaaw bu ko waajuroom tuddee sëriñ Basiiru sëriñ mo sëriñ Muntaxa la ko waajuroom joxoon ca booba ay magi sëriñ Muntaxa ñu ngi fi mu yar ko jàngal ko def ci moom li mu war a def ci moom lépp ba wàcce ko kon nee na mi ngi ziar sëriñ Muntaxa ca di ko ñaanal suñu borom yàggal ko moom ab cër la ci foofu ginaaw noonu it nuyu nuyu bu baax ak ziar sëriñ Bousso bu Bousso xalifa bagaaj bi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Bousso bi ak mboolem njabootuk sëriñ Bousso bi yëpp ak mboolem njabootuk aafe gi yëpp naka noonu it di sant bu baax si alxaaji Fadilu Buso mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ aafe Buso ak mboolem njaboot gi yëpp ñoom ñëpp kenn ku nekk ñoom teew na fi ca ba mu ñëwee ci yow di la wax bis bi nga rafetlu ko lool ci ànd ceeg moom ci ànd ceeg moom ca ba mu tàmbulee ba fi mu ñëw yëpp nee na mi ngi sant bu baax sëriñ alxaaji Fadilu Buso di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi ba li mu yéenee liggéeyal maamam sëriñ aafe Buso mu ànd ko ak njaboot gi yëpp naka noonu lay santaale fondation Dialibatoul Marakhib bi nga xam ne moo lëkkale njabootu Serigne a Bousso yëpp ñoom ñëpp ñu ci bare bëri ñëw nañ ci suba ñu ci bëri ci ñoom ñu ngi jotaay bi ànd ci ñoom Serigne Alhaji Fadilu Bousso mi nga xam ne it mooy xalifa Serigne Abdou Bousso cay kilifa ci njab ci njabootu soxna Sawaalo it ñu ngi koy nuyu bu baax ci ko sant ginnaaw bi mu ci jotee ndigalam wax ceeg moom ànd na ceeg moom bu rafet Serigne Abdoul Ahad Bousso gaz fi la yendu di jawrinam ànd ak ñun ci liggéey bi boobaak léegi ak Serigne Khadim Bousso ak mboolem njaboot gi yëpp waaye nag sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne mooy suñ kilifa moom it ginnaaw bi ñu ci waxee ak moom moom def ci ndigal ak mboolem njabootu sëriñ Thierno gépp ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax tàmbale ci soxna Fatou Kiné ba ñi ci ñun ñi nga xam ne ñoo ci gën nekk ndaw góor ak jigéen mag ak ndaw di sant kilifa yi teew jotaay bi xat na lool ca tàng waaye teewul bàyyi nañ seen yitte sëriñ Abdourahmane sëriñ Abdoul Aziz ak sëriñ Mamor sëriñ Abo Mbacké ak mboolem mbokk yi fi nekk yépp rek xëy na bu ñu leen limee dañu juum waaye sëriñ Bass nee na mi ngi leen di sant baax bi leen gërëm te di leen sant di sant mbokk yëpp nag mbokkeem yi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Thierno bokk ak ñoom sëriñ Afia Bousso ñoom ñëpp kenn ku nekk ci ñoom def na ci bis bi loo xam ne nii moom mii de kawe na njortam mi leen di sant di leen ñaanal di sant mboolem mbokkam yi nga xam ne ñoom la bokkal ñu sant xaye wala ñu sant jaañ wala ñu sant amar ak mboolem ñu sant ci noonu mbokk ak moom ci askan woowu yàlla nee na mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm ñoom ñëpp kenn ku nekk ci na fi bàyyi ay yitteem ànd ak ñoom ci bis bi jàpp ci jàppin woo xam ne nii moom rek kawe na njortam kon mi ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal tey gën a loxo seen diggante yéen xam ne lépp loo xam ne nii yéen a ngi ci fas comme ni ngeen di ànd ak moom ci lépp loo xam ne nekk na ci mi ngi sant ñëpp di sant taalibe yi di ci gën ràññeeku di soxna maam asta ñaa ngi sëñ abdourahmaan wax na ko ngi fi soxna maam asta sànq ak mbooleem ñeneen ñoo xam ne ñëpp a ci ay turandoom di fonk seen turandoo ñoom it bi ñu yëgee bis ñëw nañu ànd ci ak moom teew fi kenn ku nekk ñoom am cee mbitte ak lu ak mbégte lool di sant mbokki taalibe yépp nag ñi nga xam ne ñoo aju ci kër gi ak ñi aju ci moom ak ñi aju ci ñëpp kenn ku nekk ci ñoom bàyyi na sa yitte jàpp ci liggéey bi ñu nekkoon ci waañ wi nekk ci bernde yi ba nga xam ne tubaarkalla macha la lépp dañ waaye it nee na mi ngi sant jànkati xasaay bu baax a baax ñi nga xam ne suñ borom da ko boole ñoom ñi fi teew ci jàngatu xasaay bu ñu leen toppoon fii ba ñu ci bëree bëri danañ jàng danañ jàng ca guddi guddi jeex kon sëriñ Bass nee na gis seen teewaay mi ngi leen di sant bu baax ci di leen gërëm di ñaan suñ borom mu barkeel leen ci xasida yi ngeen di yëngatu suñ borom defal leen ci ndam bu baax a baax a baax na it mi ngi sant ñëpp bis bi it nee li tax mu woote ko mooy comme ni ko ni ko sëriñ Fadul waxe sëriñ Abdoulaye waxe ko ñu fàttaliku sunu kilifa yooyu jéem a roy ci ñoom ñaanal leen ca sàkku ci ñoom barke te it yaakaar na ne bi ñu jàng nañ fukki kaamil ak ñaar ci ndigal loo xam ni ci ndigalu boo xam ni mën naa sowee adduna ak bernde yi mu ci àndal loolu lépp nag mi ngi ñaan suñu borom mu sotti ko aw yiw sotti ko ci mboolem suñu kilifa yooyu jiitu woon ca yàlla defal ñu tawféex nawet bu barkeel bi ñu dugg suñu borom def ko mu ànd ak barke ca mu ànd ak xéewal sëriñ Basiir daal nee na xolom sedd na guy mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kenn ku nekk ku fi teew ak amoon yenee teew jéego yi nga xam ne moom nga ñëw bi ngay dem ba ngay dellu yàlla yàlla faj say aajo ci defal la naka noonu it mi ngi sant ñi nga xam ne ñooy njabootu soxna Asawalo yi nga xam ne ju jigéen la waa kër soxna Sayna bu Seex jël na kàddu léegi ak mboolem ñu àndal ñoom ñëpp ñu ngi fi waa kër soxna Maam Bousso ñoom ñëpp it ñu ngi fi kon mi ngi leen di sant suñu Seex Joor ñoom fi lañ jenn suñu Alaaji Mbàkke soxna Ummi mi ngi ni toog am nga jotaay bi ak seeni njaboot ñoom ñëpp kon mi ngi leen di baax xam nañ ne bis bi sëriñ Basiru da ko taxawal waaye ñoom la ko taxawal moo tax ñëpp ànd ci moom kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xëy na lim waroon a wax ak lim bëggoon wax ko xëy na boo ko lëkkati woon ci aw làmmiñam ci lay gën a matale ci ñun ci lay gën a dale ci ci moo ci ñun ci ci lay gën a jubee waaye xëy na ñun suñu matadi ak suñu gàttu làmmiñ ak néew xam-xam tax na liñ ko bëgg a wax yëpp yéena ji dana am na ci xol bi waaye làmmiñ mënu ko tudd kon mi ngi sant mboolem daara kaamil yi fi teewoon ci ay daara ak daara kaamil yi nga xam ne ñoo nekk ci barabu seen du xarit teew nañ fi ak mboolem daara fi ñëwoon te yebal fi seen seen dong sëñ Abdoulaye Gass sëñ Alhaj Jatara ak mboolem yeneen daara yi sëñ Dam Guèye mi nga xam ne suñu dëkkandoo la ñoom ñëpp yebal nañ fi seen i dong ci suba ba ba tosbaar ñu nekk fi di jàng alquran moom it mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp tey jéggulu ñëpp di sant bu baax it sëriñ Thierno fay moom ci njaboot gi la ci tudde ko sëriñ Thierno mu xam cër bi mu am ci kër gi ba lépp luy yëngatu ci kër gi mu ànd ci ñoon site internet bi mu ak liggéey bi mu yëngatu ci wàllu presse ñeen ñaanal ko sëriñ bi suñ borom barkeel ko ci somm ko àndal jox nañ ñu cër boo xam ne lu mu xat xat xat lu ñeen leen ne nangam soxla nañ ko rek bala bala kaddoo daanu rek mu bàyyi seen yitte ñëw fi kon ñu ngi leen di sant bu baax di ko seeral kilifa yi ngeen ñaanal ko bu baax ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa